ginnaaw bi ma jugee nag kër kilifa di Abdoul mbay donc nekk euh, euh, ministre premier ministre donc euh, voilà gis ngeen li nga xam ne jot nañu waxtaan ak moom vraiment ñu nekk ñu gentil ñu accueillir ñu bu baax a baax a baax di defaat un coucou à toute sa famille donc dégg ngeen rek li ñu jot a waxtaan ñoo ngi nekkoon foofu nga xam ne mooy Fann Résidence donc nag jugee nañ foofu ñoo ngi ñëwaat beneen kër kilifa Ah, donc fii nga xam ne mooy Wakam extension ah, donc seet si ki nga xam ne mooy euh, monsieur Abdoul euh, Abdoulaye Diouf Sarr donc voilà donc moom nag ministre la dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo euh, voilà jàmm santeet ñi nga xam ne ñoo koy seetaan bu ko defee ñu daal di ñëw ci baalonte àkk bi monsieur Diouf Sarr nuyu nañ la. mais maa ngi lay fay bu baax di leen remercier si quand même li ngeen ma seet si tey. di donc euh, jël opportinité bi pour euh, baalu ak sénégalais yëpp bu ma leen nuyoo ba pare di leen baalu ax bu baax parce que effectivement def nañu weeru koor boo xamante ne weeru njëggal la ak weeru donc euh, boo xamante ne weeru ngëneel la ñu pare ko dans de très bonnes conditions tey ñu war a donc def la fête de la Korité premier acte bi ñu war a def mooy baalunte ax donc ñu ngi baalu ax sénégal yëpp di ñaan effectivement yàlla mu defal ñu jàmm ba ñu fekkewaat ko déwén dans de très bonnes conditions. macha allah que yéen aussi ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan euh, baal ngeen ko àkk et que man aussi di leen baaluwaat àkk bu baax a baax donc euh, voilà jullit moom bu leen baaloo rek da ngeen ko war a baal ah, ba tax na nag euh, ginnaaw balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy korité bi démb lañ jugee ci li nga xam ne mooy koor donc koor ñëpp xam nañ ne métti nañ koor gi nag nga ko doom dundee monsieur Diouf Sarr est-ce que ñeme woon nga exactement li nga xam ne mooy koor parce que ñi ko ñemee bariwul <laughs> waaw ah, c'est vrai que koor moom ñu ko ñemee bariwul surtout suñu suñu mbokku caamen yi xam naa ku mel ni Zara Yane Thiam moom boo ko fekkee këram xam naa si koor gi di nga xam ne ñoom ñemewuñu koor maa ngi koy nuyu au passage euh, di wax ne effectivement koor euh, weeru ngëneel la weer bu suñu borom tànn la si weer yi donc ak euh, nu mu métti métti rek da ngay gëm ne effectivement donc dafa am lu si yàlla nam mooy jégal jaamam effectivement donc euh, bokk naa nag si ñi xamante ne wax nañ ne ñemewuñu ko parce que je me souviens quand j'étais élève étudiant euh, bu ma daan xaar koor bu doon des ñaari weer sama maam <laughs> yàlla na ko yàlla yërëm daf may wax ne ma laay sa xarit rek mu ñëw damay foog ne lu nekk lay wax ndekete koor lay wax parce que tellement dafa xamoon ne ñemewuma ko <laughs> bon dëkk effectivement donc euh, weer la weer bu tedd weer la boo xamante ne vraiment jàmm bi def si war profité pour donc euh, jaamu boromam parce que dafa am lu si suñu yàlla lu suñu borom dugal si biir koor donc def nañ ko dans de très bonnes conditions euh, la ñu yaakaar euh, yaakaar nañ ne suñu borom jéggal nañu si en tout cas ñaan nañ si njéggal tey jeexal nañ ko sénégalais yëpp effectivement donc kontaan nañ si loolu moo tax ku nekk rek boo gisee sa morom tey di nga ko wax mu bàllaax parce que ax dafa sew macha allah ak dafa sew lool ba tax na des fois mun nga amee nit ak te doo ko yëg ndax euh, chaque jour rek ki nga xam ne mooy Omar at euh, Papis Dem euh, daal di ma tooñ mais baal naa leen ñoo ngi noonu sama chauffeur la at sama caméraman donc aussi xam naa ne ku nekk am nga anecdote ci li nga xam ne mooy koor. ñoom it dinañ wax peut-être seen anecdote après li nga xam ne mooy rek interview bi donc di di xamal na nit ñi carrément koor musta yomb dafa daal di métti ndax nga xëy suba ba ngoon. lekkoo loolu rek dafa daal di métti lool ah, donc mi ngi noonu ñu daal di eh, jóge ci li nga xam ne mooy koor gi démb ah, monsieur Diouf saax daal di ñëw tey ci li nga xam ne mooy korité ginnaaw am nañu korité démb sax nag mais yow tey korité gi naka nga ko dundee ak lan moo nekkoon eh, rek li nga xam ne mooy sa programme ci korité bi. Euh, korité tey bi moom je crois que dund nañ ko dundeen boo xamante ne donc euh, bu neex la parce que jog nañ dem euh, julli ji Yoff Layeen Euh, ñuy profiter sa occasion bi du nuyu imaam Mame Libasse Laye moom moo jiite effectivement julli it bi tey def xutba bu am solo boo xamante ne donc euh, mu ngi ko jëmale si njub euh, ñu koy nuyu bu baax di nuyu effectivement toute la famille bu fa jogee dem nañ suñu kër si Yoff këru imaam Malick Sylla muy imaam Ratif Yoff moom moo jur effectivement sama ibrahima Ibrahima la mu jur sama yaay kooku mooyoon imaamu raatibu Yoff euh, mu nekk donc euh, ku yàlla mayoon si wàllu xam-xamu diine euh, depuis plus de cinquante ans dañ koy jàngal kaamil saa yu korite jote donc quartier bi yëpp fa la ñu daje pour jàng kaamilu maam Malick la dem naa fekk kaamil boobu parce que ba ma nekkee xale dama ko doon fekk pour que bu ñu paree paa yi may ma juróomi dërëm mais léegi dama koy fekkee en tant que responsable parce que lañ fay joxe maa koy joxe loolu mooy wane rek ne effectivement évolution day am loo daan fekk ba nga nekkee bi nga amee 5 ans bu ñu paree jox la vingt cinq francs léegi ngay dem ba yow yaa koy taxawee di ko joxe loolu da ngay sant yàlla donc dem naa foofu bu ma jógee foofu nag laa ñëw toog ak sama njaboot parce que effectivement bés la boo xamante ne euh, il faut effectivement nga toog ak njaboot gi waxtaan ak ñoom euh, si bés bi. mais aussi waxtaan ak moom de manière générale sama xarit ba bële euh, depuis ñu am euh, cinq ans ba léegi euh, ñooy ànd ma ak moom bés bi moom ak fu mu ñu mën a fekk il faut que ñu daje ma ak moom parce que taawam man la ko tuddee man sama taaw moom laa ko tuddee depuis effectivement l'enfance on est ensemble donc chaque Korité chaque Tabaski on est ensemble donc da ñu fekk ñu toog di naan attaaya di waxtaan. <laughs> c'est important donc euh, mu ngi noonu loolu amitié sincère la ba nga xam ne euh, tuddante nañu doom mais mm. ba tax na tey dañuy daal di ñu am peu ci côté repas yi bu ñu nee korité dañu naan euh, ginaar mooy la viande rouge la viande blanche du moins donc yow entre la viande blanche ak la viande rouge ban moo la gënal. waaw man moom la viande blanche moo ma gënal si ñaari fan moo ma gënal parce que moom ma gënal. <laughs> mais moom a gënal parce que moom laa imposé sama bopp par rapport à des di d'hygiène de vi parce que yaakaar ne moo gën a yomb en digestion li ma laaj pour surveiller effectivement sama bopp si wàllu alimentation yaakaar naa ne moo tax ma imposé sama bopp la viande blanche que dafa mel ni moom moo ëpp bàyyi rek parce que ñu bari euh, moom moo leen daal di gënal ci li nga xam ne mooy euh, pour nga am digestion bu facile euh, donc moom moo gën a gaaw et que mën nga ko lekk tamit guddi te du la indil benn complication par rapport ak li nga xam ne mooy la viande rouge ñu gis ne aussi période korité bi ba muy waaj a jot période koor bi du moins ba muy waaj jot am na benn feebar bi nga xam ne dugg na ci dëkk bi du nag nekkul lu bees parce que feebar boobu biñ ko daal di euh, bi mu daal di xewee euh, moo ngi daal di nekk en 2003 mais dafa daal di ñëwaat ren fii Sénégal ñu daal di ko njëkk gisee fële ca Saint-Louis muy grippe aviaire grippe aviaire bi nag euh, commencé ci picc yi mais ñëw ci ginaar yi tax ba ginaar ren manqué lool lool lool donc est-ce que yow dund nga manque manqué ginaar bi nga xam ne manqué na ren wala nan nga dundee exactement li nga xam ne mooy ginaar yi waaw yaakaar naa ne donc manqué ginaar bi wax nañ ko ren euh, mais il faut que ñu noté loo xamante ne euh, lu am solo la mooy que ne dañ doon wax en son temps que ne il y a de cela dix ans onze ans ou même douze ans aux environs 2012 dañ doon wax souvent ganaar Sénégal dafa jafe woon am parce que ganaar yu si ëpp dañ ko doon importé mm-hmm. demoon nañ sax bay wax ay aile de dinde ganaar yi nekk si réew mi ñu ko fii donc euh, euh, euh, comment dirais-je encore voilà presque dafa marginal woon bariwul ñu dem a dem a dem ba ganaar léegi kenn dootu ko importer mais lépp fi lañ koy donc yore loolu déjà avancé bu am solo la pour réew mi damay damay noté loolu rek pour que Sénégal xam ne fa ñu jógee ak fi ñu yegg si wute na actuellement dañoon demoon situation boo xamante ne autosuffisance sax dafa amoon si wàllu ganaar mais euh, donc feebar yu mel nii mën na am bu amee mën na déséquilibre marché bi donc euh, nañu yàlla yàlla suñu borom rek mu nekk loo xamante ne euh, du fi donc yàgg loo xamante ne aussi dañ koy traité rapidement mais heureusement ko suñu service élevage vétérinaire nekk nañ ñoo xamante ne ñu xarañ lañ am jumtukaay yi war pour que donc yu mel noonu bu amee si wàllu mala yi ñu mën ko donc régler le plus rapidement possible. alors monsieur Diouf saax ñu daal di faral di gis ne carrément euh, lu lu faral di fi xew la nag euh, korité wala tabaski ñaari ñaari tabaski wala ñaari korité ren mu bokk ci euh, li nga xam ne mooy dañu korité ñaari korité am na ñi nga xam ne wari nañu démb am ñi nga xam ne tey la ñu wari donc yow xam naa ne kon que laay jàmm laay nga jullee ci laayee ni xam naa ne tey nga wari donc naka nga gisee situation boobu nga xam ne nit ñi dañuy dund ñaari korité ñaari tabaski Sénégal dama ko gis rek que ne ku nekk da ngay euh, demee ak sa pas-pas xam nga wàllu diine moom jarul ñu si disserter wala ñu si donc xuus yenn xuus yi parce que ku rek sa pas-pas ngay demee ak sa diggante ak sa borom euh, moo tax am na ñu julli démb seen pas-pas ak seen diggante seen borom ak seen donc lu ñu gëm seen conviction fa ko wéer moo tax ñu julli am nañu julli tey effectivement ñoom aussi fa ñu ko weer ak seen pas-pas ak seen conviction moo tax ñu def ko man dama bokk si ñu xamante ne wàllu religion du ma si discuter discussion yoo xamante ne donc day niru ne da ngay si jël position parce que très souvent ngëm-ngëm dafa nekk lu xaw a délicat ku nekk rek li nga gëm mi ngi si sa dënn yàq sa borom la donc euh, li am solo rek mooy que ne Sénégal ak nu mu mën a demee ñun ñëpp benn bopp lañ julli démb ak julli tey yëpp ñu ko def ñëpp xam nañ ñoom ñëpp ay sénégalais lañ mais effectivement ku nekk rek da nga demee say principe religieux ak fa nga weer ne effectivement moo war a tax nga julli démb wala nga julli tey effectivement euh, donc te loolu sax du fi gulleet ñun ñëpp ay jullit lañ que nga julli démbal nga julli tay yëpp benn la l'essentiel woor nga julli nga et que euh, di yàlla santaane def nga ko euh, donc mu ngi noonu ñu daal di xaw a jugee tuuti ci li nga xam ne mooy korité bi daal di ñëw ci politique xam naa di nga sawar ci politique bi donc li nga xam ne aussi mooy l'origine de la tension sociale mm. ñan ñoo ko waral exactement ban tension sociale. mooy politique bi xiiroo beeg ŋaayoo bi euh, euh, lii wante yi lan kan moo ko waral exactement ñan ñoo ko waral. xam nga euh, damay vraiment bëgg ñu wax principe dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne république la république nag li ko lal mooy état de droit ñun ñëpp ay sénégalais lañ. ñoo daje si misaal ne dañoo tënk suñu bopp si ay loi ak règlement yoo xamante ne moo ñuy diriger principe boobu buñ ko gëmee ba pare il faut que ñëpp xam ne effectivement loi ak règlement moo leen effectivement donc gouverner bon ndëkk il est important que ñu xam ne képp ku mu mën a doon ak sénégalais boo mën a doon rek tu n'es pas au-dessus de la loi yaa ngi si biir loi bi yaa ngi si biir règlement bi bon dëkk coow mën na ñàkk coow mën na am si wàllu démocratie parce que démocratie boo gis nag il faut que débat politique bi des fois mu xumb mais il faut que ñu encadrer ko ku nekk rek xam lan moo si sa cër ak lan moo si sa wareef ak lan lañ la si tere bu ko ñëw respecté rek coow du am bon nag question bi nga ma laaj dama la koy delloo mooy yow d'après yow kat moo respecté wu loolu il est important que ñoo xam ne tous les citoyens ak sénégalais bu mën a doon bu ñëpp tënkoo ne rek dañuy respecter les principes démocratiques yaakaar ak les principes de la république l'état de droit mbir vraiment du du du bëri problème euh, il est important aussi ñu noter ko ne euh, cool yi mën na joge si euh, pouvoir bi mën na joge si kujj gi du ñu jox ne si biir pouvoir bi ñëpp dix pour dix loolu amul am na si ñuy biir ñoo xamante ne ay pyromane lañ du ñu ne aussi ci biir opposition bi ñëpp effectivement donc euh, euh, dañu am problème am na ci biir ñoo xamante ne ay républicain lañ moo tax acteurs politiques yi de manière globale ñoo war a nekk ay acteurs vertueux un acteur vertueux mooy acteur boo xamante ne day xam ne on est en république dañoo nekk dans le jeu démocratique dafa laaj effectivement ay droits ak ay devoirs bu fekkente ne da ngay laaj say droits respecter effectivement devoirs yi tam nga def ko bu ñu ko defee vraiment du ma wax ne coow du ñàkk de mais du bëri parce que même coow bu amee dañ koy teg si yoon loolu vraiment donc laa si bëggoon wax may demander à ce que euh, ñu xam ne am réew kenn du ko lal si stratégie boo xamante ne maa ngi koy woowee la stratégie du chaos reconstruction mooy nañu def kaw nañu toj lépp na lépp na lépp yàqu après ñu tabaxaat loolu buñ ko doon def Sénégal yu yegg si fii Léopold Sédar Senghor daf ko yor defar la nation tabax ko ba ñëpp nekk benn ñu ne ay sénégalais lañ Abdou Diouf jël ko tabax l' de droit tabax administration ba ñëpp xam ne Sénégal a une administration majeure Maître Abdoulaye Wade jël ko tabax réew mi say infrastructure jox Sénégal seen gëm-gëm ba mu taxaw Macky Sall jël ko mais def des pas de géant sur le plan effectivement des infrastructures du développement économique et social ba actuellement ñu ngi sur l'orbite de l'émergence mais loolu waruñ ñëw xëy benn bés rek na dañ koy tabax dañ koy toj bu ñu tëjee lépp tabaxaat toj tabaxaat moom baaxul dañuy ku nekk da ngay ñëw teg sa pierre ñu avancé mais bu doon nekku ñëw rek da ngay toj tabaxaat mais Sénégal toujours ce sera un éternel recommencement loolu c'est pas bon. d'accord ñu daal di euh, ñëwaat aussi si yeneen solution naka nga gisee euh, solution pour euh, une présidentielle apaisée ban solution nga gis pour une présidentielle apaisée. mais le respect de l'état de droit et des principes de la démocratie le respect de l'état de droit wax ñu def ko. Euh, les principes de la démocratie mooy ku nekk rek xam ne effectivement euh, baat bi askan bi moo ko moom baat bu ko askan bi moomee rek da ngay dem seeti askan bi laaj leen effectivement donc euh, say seen i seen i baat bu ñu la ko joxee nga xam ne yow lañ ko jox respect de l'état de droit dem sur les principes de la démocratie démocratie mooy lan mooy ku nekk rek na nga yëngatu dem laaji askan bi mu denk la mboolu askan bi denkee nga xam ne yow lañ denk nga lal ko nag si yoon pour mën a réew mi loolu bu ñu ko defee mais coow du jóg d'accord gis nañu également ki nga xam ne mooy Idrissa Seck quitté na benn Bokk Yaakaar delloo na li nga xam ne mooy postam kontaan nga ci loolu. non du kontaan na wax du kontaan parce que quand euh, loolu moo cohérent yaakaar naa ne bu ngeen euh, seetloo ñaari fan yi def naa fi deux sorties pour wax loolu parce que nag euh, bu fekkente ne dañoo nekk ci démocratie démocratie dafa laaj éthique dafa laaj. élégance dafa laaj cohérence loolu laa waxoon d'ailleurs si donc sorti bi ma defoon euh, Idrissa Seck effectivement du acteur politique bu ndaw acteur politique bu respectable la acteur politique bu mag la acteur politique bu majeur la am lu mu def si réew mi kenn loolu kenn du ko kenn du ko werante nekk na parmi les hommes politiques les plus brillants du Sénégal ku mel noonu nag li mu def li muy def dafa war a cohérent te acte bi mu posé tey moo nekk dans la cohérence de la tradition démocratique du pays munoo ne effectivement yow donc euh, da nga war a dem ci ay élection candidat nga ba pare nekk si régime bi xamante ne à partir du moment bi nga ne candidat nga régime boobu da nga jóg pour mën naa wax entre guillemets faagaagal ko parce que da ngay jóg pour donc jël fauteuil bi donc li ko li mooy nga génn dem doxi dox bi xamante ne moom nga war a dox pour mën a jël nguur gi ñoom ñu continuer gouverner beneen bi aussi mooy que ne en tant que président du conseil économique social et environnemental euh, da nga war a joxe avis da nga war a joxe conseil ki nga war a joxe conseil déclaré nga ko nga nekk sa place laa bëgg bon mun loo le lendemain nga formuler avis ah, euh, war nga ko envoyé bu boobaa moom je me demande avis yooyu bu ko jotee lan lay wax donc li daal yaakaar naa ne mooy gën a mettre à l'aise les mooy gën a rendre lisible le jeu politique mooy tax acteurs donc euh, politique yi ak euh, les citoyens de manière mbir mi leer seen bopp parce que loolu tam damay lancé un appel à tous les hommes politiques il faut que actes yi ñuy posé ñu si sóoraale askan bi parce que askan bi dañoo soxla am une lisibilité mooy comme ngay dawal oto rek booy dawal oto euh, mu am brouillard mais il faut nga def sa essuie-glace pour mën a gis devant mais bu fekkee ne y a beaucoup c'est pas lisible il faut que ñu jàppale askan bi pour di poser act yoo xamante ne du poser un problème de lisibilité pour les populations alors tey dañuy daal di jeexal ci benn question monsieur le ministre naka nga gisee Sénégal euh, en 2024 naka nga ko nar a gisee Sénégal euh, en 2024 ni ma koy gisee mooy que ne Sénégal la boo xamante ne mu ngi yéeg mi ngi monter en puissance parce que dama fekkee bi ñuy jël réew mi en deux deux mille mille 2012 bi ñu jël réew mi mais euh, budget Sénégal 2400 milliards la woon fi may wax ak yow mille cent milliards dañ ko multiplier presque par 3 loolu jara donc seetlu la euh, domaine bu ma jël rek mën naa la wax effectivement lan moo fa newoon ak lan moo fa nekk tey ñu war a dugg si Sénégal boo xamante ne en 2024 day produire du pétrole et du gaz mu nekk beneen économie avec euh, donc ay taux de croissance à deux chiffres donc Sénégalu 2012 du doon bokkul du dara ak Sénégal 2024 Sénégal 2024 beneen Sénégal lay doon c'est-à-dire euh, vraiment du doon même du même du même échelle bi du même niveau bi bon nag euh, perspective boobu mais boo ko gisee nga gis ne sa dëkk mi ngi yéeg di placé wu sur l'orbite de l'émergence foo xamante ne bu fa taxawee day méngoog dëkk yi am du ëpp doole mais da nga naan alhamdulilah alhamdulilah boo koy wax c'est pour nous mais surtout c'est pour les générations futures parce que monde bi dafa nekk en compétition mais nos enfants ak peut-être suñuy sët yi ñëw ëllëg mais il faut ñu bàyyi bàyyiloo nag réew mu dëgër te loolu laa gis muy ñëw moo tax damay wax alhamdulilah il faut absolument ko loolu kenn bañ ko yàq yàq ko nag mooy bëgg toj tabaxaat toj tabaxaat baaxul jamais de chaos reconstruction il faut vraiment continuer dans un processus de construction construction processus la parce que le président Macky Sall ba mu ñëwee 2012 mais la ma fa fekk si Wade moom la jël ful ko ñetti yoon loolu dafa am solo te loolu moom laa gis effectivement ñu war ko mën a poursuivre après 2024 macha allah euh, kon ni ngeen ko gisee entretien bi am na solo lool euh, dégg ngeen rek li nga xam ne euh, moom la wax moom monsieur Diouf Sarr donc lépp téere la ah, parce que boo leen di koy déglu di ngeen xam ne carrément ku xam li muy wax mooy daal di wax donc mu nekk un plaisir ñu dalaloon la si suñu entretien bi nga xam ne mooy spécial Korité avec les célébrités ñu ñëw tey kër kilifa ah, donc dañu lay daal di bàyyi nga daal di tàggatoo tàgg ñi nga xam ne ñoo la doom seetaan. mais maa ngi lay euh, remercier bu baax am euh, beaucoup de fierté pour wax euh, si seen télévision 7TV une très grande télévision mu leen di félicité di donc rafetlu seen professionnalisme di ñëwaat encore di nuyu tous les sénégalais ak toutes les sénégalaises di nuyu donc si biir Sénégal waa Ndakaaru yëpp di nuyu waa Yoff yëpp kontaan vraiment di wax baal leen maax mais surtout. di baal wax aussi njaboot yi parce que très souvent nous les hommes politiques euh, yu mel nii bu amee il faut que ñu wax ak njaboot gi ne leen baal leen wax ñu ngi leen di baal wax parce que très souvent euh, du ñu am jot tellement que yu bëri donc dañ koy romb mais cent s'en rendre compte d'ailleurs euh, mais bu ñu suñu njaboot yi bul comprendre rek bu mën nañ leen teg ak yoo xamante dañ ko seetlu donc ñu ngi profiter occasion bi di baal wax vraiment les familles surtout di remercier aussi euh, donc euh, tous les amis euh, mon ami Boubacar Diallo ba ngeen fa fekk ni sama xarit la depuis que ñu xàmma ko maak moom ba léegi ñooy ànd tous les donc Korité Tabaski on est ensemble man la tudde taawam man tam sama taaw moom laa ko tudde parce que nag tey am na mais tey si démb la génn moo tax il faut jamais oublier effectivement que on vient de quelque part boo xamante ne bu lépp jeexee dem fa la ñuy dellu merci beaucoup euh, monsieur Abdoulaye Diouf Sarr euh, donc merci aussi également ci accueil bi. Euh, voilà di ko jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen rek li nga xam ne jot nañ ko waxtaanee euh, donc nee naa leen tey euh, ñoo woon fii également aussi fi nga xam ne mooy Wakam extension donc ñëwoon seet si ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf saax kenn dootu ko présenté ti fii ci Sénégal ndax naanaan la monsieur le ministre ñoo lay jaajëfal bu baax a baax mais aussi nee naa leen duñ fi yem dinañ daal di demaat seetiwaat beneen kilifa bu ko defee ñu waxtaanan moom nee naa leen tey korité la dañuy baalonte ak xam naa ne également di ngeen bëgg eh, gis ñenn ñi nga xam ne gëjoon ngeen leen gis wala namoon ngeen leen wala sax yéen a ngi eh, di leen faral di leen gis eh, pour ngeen daal di ballonteet ak ñoom donc ñun tamit waa 7 yi noonu la ñuy daal di def dem kër ñi nga xam ne Sénégal ràññee nañu leen dem tiimal leen su ñu micro ndax ñu daal di am opportunité baalu ak sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi leen di seetaan papis dem bu baaxee rek dañu ñoo ngi demaat kër beneen kilifa bu ko defee ñu gën a baalonte ak